nag jàmm ci xibaar li ci jot fës nag dañ koy doxee nag mbirum li président Ousmane Sonko ak président de la République ci li nga xamante ne si nag euh, moom moo di euh, li nga xam moo di introduction yoo xam si nag njabootu Macky Sall interdit ne leen pour rek ñu euh, bañ a génn li nga xam moo di réewum Sénégal moom wi di président ak li nga xam gouvernement bi moom daal dañ leen interdit pour rek ñu bañ a bañ a génn rek li nga xam moo di réewum Sénégal ndax lakk dana am audit yoo xamante ne nag dañ koy audité ginnaaw nag ñoom nguuru Macky Sall gi ban fi nekkee caxat caxate alawu réew mi euh, moo tax daal ñoom bëggatuñ benn rek koo xamante ne si ne nag di nga génn li nga xam si ne moom moo ci réew mi ndax audit lan lañ bëgg continuer euh, ba pare soog a mën a def nag li nga xamante ne si na moo di bàyyi leen ñu génn képp koo xam si na takkawoo ci laalewoo euh, ci li nga xamante ne si nag moom moo dipp euh, lii bi euh, caxat caxate alamu ñoom daal duñ la dara moo tax képp koo xam si daal takkawoo ci di nga am sens ba réewum Sénégal daal di fi mën a ci jàmm di génn di dem ak ñëw ci ndigalu ko li nga xamante ne si nekk moo di justice ginnaaw nag bés bu leen àttee Eh, ba pare leen jaajëfal bu baax a baax a baax